et vous cherchez une bonne école pour vos enfants, les cours privés foyerés sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala 6 vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la sixième à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés foirés présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur du cours privé Foyeré au 77 764 68 04 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant ILEL au 77 559 30 42. Les cours privés Foyeré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. cours privé Foyeré, rek te gang bala te di leen siyaare ku ci nek sa tur ak sa sante di jital ci ciar bek nuyo bi Serigne muntaha mbake di ñaanal sa borom yagal ko lol tam and ak wer bepp nal bu euh, jug ngir ko mamam gu tedd ga Cheikh ahmed Bamba Khadim Rasoul sunu borom kàttanal ko may ko wer ba mu yeggale ko tan an ko mom ñu ñaanal bax Serigne Modou Menda mom mi nga xamantene mo fi nekkal mam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yagal ko fi lol mu and ak wer di ñaanal njabootu Serigne Touba geeg maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp. ñu ngi fii nag ci Touba ba léegi ci seen grande màggal 2021 nga xamante ne ñu ngi koy defee fii si la Dépêche TV tey ñu ñëwoon fii ci nga xamante ne waa Daara Safinatul Amaan bu Thiès dixième fii ci Touba nga xamante ne fii mooy seen dalwaay ñëwoon seet si leen ngir am waxtaan gu ñu sekk ak daara ji. di ko jox kàddu gi mu nuyoo rek bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi incha allahu rabbi waaw auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam eh, kon ñu ngi leen di nuyu ñun yéen ñëpp ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ñaanal yokkute ci barke rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam di wax rek ne maa ngi tudd Samba Mbodj eh, nekk jëwrinu daayira ji ñuy wax safinatu amaan bi nga xamee ne sëñ Sidi Moxtaar mo ñu tour tur euh daara ji euh jóge nañ Thiès ñew ci magal gi yi nak ci fi ñi wax Daaru khudos ñaari étage fi moy suñu way loolu dal moy nuyo di len euh, ñaanal gudd fa nak wér gu yaram yéen rek ak yokkute tawféex ak taysiir. akasa jërëjëf jëwrin dëgg yàlla ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant bu baax ci dalal gi nga ñu dalal ngir ñu am ak yow waxtaan ndax dëgg yalla xatna waye dañu xamne ne. sëriñ liggéey bi ngeen di liggéeyal Serigne Touba rek moo waral ngeen accordeel ñu lii nga xamante ne ñu koy def tey nag maanaam màggal Serigne Touba gi ku ci ku ci ku ci dugg ku ne faaw nga wax ci Cheikh Ibra Fall naa ni tey nag ci Cheikh Ibra bëggoon dikk ñi amoon ay laaj yoo xamante ne rek ci maam Cheikh la jëm ndax ku xam sëriñ bi ku ne Serigne Touba ne Cheikh Ibra waaye loolu tamit am na lu ko may Cheikh Ibrahima Fall waaw am na um, may gi nekkul lu dul ba muy ba ko saa borom tegtalee sëriñ bi wër na ko fu ne xam naa ni si loolu rek nga ñu dikkalee bu ko defee ñu gën a xuus incha allahu rabbi waaw euh, ñu ngi leen di ziaraat bu baax kon ci laaj boobu buñ ci bëggee ñëw rek. Mhm. dañuy wax ne rek euh, dafa mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall dafa am pacte bu mu signé woon ak Serigne Touba Mbacke ci loolu mu mel ni dafa waxoon bu ñëwee àdduna. moom dina ko wër pour gis ko waaye dafa mel ni sëñ Tuubaa da koo joxoon ay tegtal ay tegtal yoo nga xamee ne moom moom lay xamee ne kii muy wër mooy sëriñ sëñ Tuubaa Mbàkke ndax eh, ak tegtal bi ci gën a fës rek mun nañu wax ne sëñ Tuubaa waxoon na ko ne saa soo ñëwee àdduna ba may wër li nga xamee ne mun naa la ko jox ci misaal mooy sama njaboot góor ña ak soxna ya ñépp dañuy nekk ay wàll lu ci am kenn ku am ay des-des loolu nekk na loo xamee ne maam Cheikh Ibrahima Fall daan na ko xool ca ñam daan dem di yaakaar ne sëñ Touba la waaye comme ca dem rek su gisee ne am nga xëy na benn doom boo xamee ne am na loo xamee ne des na rek day xam ne du yow mu mu wëyal seetam te noonu la wëyalee seetam nag euh, ba gis ki nga xam ne moom la doon wër ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mm-hmm. euh, ci loolu liñ ci mën a wax mag ñi wax nañ ne sax fa mu mujj avant muy gis Serigne Touba ndax dafaa nekkoon sax di liggéeyal kooku noonu. ba mu koy liggéeyal am ñaari jëmm yu jóge woon ci kër Serigne Touba. romb ko waaye maam Cheikh Ibrahima Fall dafa mel ni moom dafa wax ci àdduna ñëpp di ko dégg que ne Serigne dafa am xetam boo xam ne moom da koy xeeñ ñooñu ba mu leen gisee xet boobu xeeñ ko mu xam ne kat ñii ci ku baax ki lañ bàyyee ko ba mu xamee loolu mu dab leen laaj leen ñooñu ne ko ah. kok demu ku tedd kooku day wax de moo ñu yónni dañuy dañuy dem ci yonent bi buñu depp nga ànd ak ñun mu nangok lol ñom dal di delu ci serigne bi nga xamé ne mom la mom la nekkaloon daal di ne serigne man kat damaa bëgg a ku bëggon nga ñaanal ma mak ñi nenañ ci ci ci taarix serigne bobu da ko ñaanal ñaanal bo nga xamé ne da nga ko doon ñaanal ko jëppi na to ko wax ne fo jublu yalla na fa yiwu yalla jublu mak ñi wax ne ndeke fu mu jëm fa la yiwu yalla yëpp dajé ndax da ci Serigne Touba la jëm ah ñe Serigne Touba yoni won Ibrahim depp ñew fekk mam Cheikh Ibrahima Fall pare ñu and ak mom jëm ci Serigne Touba wax nañ ne nak ca jamono joju amna ay bak yi nga xamé na sax malaka yi ñoko don bak nak bekk ci dajé gi nga xamné war mo wara am ci digënde Cheikh Ahmadou Bamba ak ki ñi wax mam Cheikh Ibrahima Fall. nga xamné nit ñi il faut il faut ñu xamné mam Cheikh Ibrahima Fall nekul talibé bu ñëk ci kër Serigne Touba. maam Cheikh Ibrahima Fall dafa nekk quarantième taalibe ci biir kër Serigne Touba Mbacke. loolu nag eh, ci misaal aussi dafa am beneen yee boo xam ne war nañ cee yee ndax ñun ñëpp xam nañ ne 40 ans mooy âge bi nga xam ne at bi nga xamee ne ci la eh, yow màkkaama yi nga war a mën a am ak yëpp matay sëkk pour nga mën a wane sa bopp. waaye maam Cheikh Ibrahima Fall ñu nekk quarantième taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall nekk googu mu ko nekk nag moo waral maam Ibrahima Fall ba mu duggee kër Serigne ah ay soppeeku yu yes da ci am ah, da dugg ci kër gi rek soppé fa lu béré béré béré béré nax waa nañ ne maam Cheikh ibrahim Fall bamu mu dafa fekk mag ñi nekkoon na touba di jang alcorane wala bëti ko laaj leen ah yeen na xam ngeen ki ngeen nekkal mag ñi ku nekk ci ñom di di wax lim xam ci Sëriñ touba Cheikh ibrahim Fall ko jël alcorane boobu ñu doon jang ñom di leen wax kan moy Sëriñ touba kon war na leen déjà que ne moom moo leen gëna xam Sëriñ touba mhm. bimu ñëwé mu fekk fa ay doxalin yoo xamee ne moom dafa jàpp ne doxalin yii àndut ak jëmm Serigne Touba kenn warut a doxalee nii Serigne Touba nekk ci biir kër gi nit ñii di wax di xàqataay ca kaw di nuyu Serigne Touba di taxaw ah, di nuyu sëriñ Touba ak loxo yi neen maam Cheikh Ibrahima Fall ne ah jot na nag ma soppi lii nga xamee moom laa fekk ci biir kër mu soppi ko ba mu jeex tàkk ne fu Cheikh bàmba toog ñëpp dañ toog ci suuf te yaru képp kuy nuyooti Cheikh Bamba. da ngay àndaale ak addiya boo koy jox donc loolu mën nañu wax ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko indi ci yoonu murit mhm. waaw maam Cheikh de daa nekk jëmm joo xamante ne ñuy dégg sax boroom xam-xam naan moom taxawaay gi Seydina Omar amoon ci yonent bi moom noonu la amee woon kër sëñ bi mhm. ndax Seydina Omar ba mu ñëwee daa daa lijjantiwaat kër yonent bi maam maam Cheikh tamit ba mu ñëwee ci kër sëriñ bi maam dafa lijjantiwaat kër kër gi. ba tey mag ñi ñoom ñëpp ku ci ku ci yar yaru ku ne yaakaar nañ ne ci Cheikh Ibra nga ko jëlee. dëgg waaw kon dañuy pëtoxlu rek daanaka na waxtu bi xaw naa xat waaye dañuy dañuy laaj rek ci diggante maam Cheikh Ibra ak sëriñ bi ndax seen ànd fii la ci ci jamono wala wala lu ko jiitu la. waaw comme ni moo ko waxee woon sànq dama wax ne maam Cheikh Ibrahima Fall dafa mel ni. dafa am lu mu rëddoon ay lu mu signé woon moog Serigne Touba. Mhm. waaye boo déggee ñëw dafa am lu mu signé woon moog Serigne Touba moo war a ñëw fii ko. kon loolu lu yàgg la. Euh, ci ci ci waxu mag ñenn yi sax doomu aadama bi sàq guñ ko. Mhm. ca lañ signé la a daje ci kaw suuf biir yi waxtaanu mag ñi di nga ñu naan maam Cheikh Ibrahima Fall wax na ne Serigne Touba moo ko jox suuf bii. ne ko taalal ko ñu dox ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu taalalee suuf nit ñi dox ci suuf ba bés moom mu ciy doxee mu ciy doxee benn tànk di samp tànkam ay mag di ko xool naan xoolal Cheikh Ibrahima xool dafa sëñ Tuubaa bi ni muy doxee mu ne waaye ñooñu dañoo xamul li xew dañoo xamul ne man maa taalal suuf mu yàgg lool ma dem ba yërëm ko ci nit ñi ni ñu doxee ci kawam ak nit ñi niñ koy xottee di ko gas yu nekk ma yërëm ko ci may doxee benn tànk ngir yërëm ko donc maam Cheikh Ibrahima Fall lam si ñeeg teñ moom du ci àdduna weesu na àdduna ndeysaan <laughs> waaw loolu de eh, leer na nañ ndax Cheikh ak sëriñ bi moom daanaka seeni mbir yaakaar nañ ne du fii moom waaw loolu moom ku am seetlu rek dégg yenn taarix ak ñi ko fekkee tamit di nga xam ne ñaan ñi seen ànd du fii mhm. du fii wax dëgg yàlla kon maanaam Cheikh Ibra lenn rek lañ bëggoon xam ci moom ndax am na taxawaay bi mu amoon kër sëñ ba ba ni ko sëriñ bi gërëmee maam taxawaay googu maam lan bëgg a xam comme niñ niñ ko waxee niñ ko andi woon sànq rek mu gën a leer rek ngir ñi nga xamante ne ñi ngeeg ay ay maanaam ndongo ci kër saay su ne dina am benn ndongo boo xamante ne dina yor jikko Cheikh Ibrahima ñu xam ni ñuy doxalee ak ñeneen mhm. loolu rek lañ bëgg. waaw li ñu li ñu bëgg a leeral foofu. Mhm. mooy comme ni ma ko waxee woon sànq jiituwul ci kër gi. dafa ñëw fekk fa ay nit. Mhm. waaye ba mu fa fekkee ay nit tamit daa ñëw ràññeeku lool. ba ñëpp xam ne ah kër gi am na gan. Mhm. kër gi soppeeku na. Mhm. Cheikh Ibra changé kër gi. Mhm. indi fa ay doxaliin yu bees. doxalin yu bees yooyu nag te jàpp naa ne murit gi sax naw gi leen nit ñi naw ci seeni yar ci seeni so col ci ni ñuy doxee. ah loolu loolu moom euh, sant sant nañ ci bu baax a baax baax Cheikh Ibra Fall ndax ndax nax moom moo moo def loolu Cheikh Ibra moo ñëw yore kër gi changé ko ba borom kër gi tuddee Cheikh Ibra tur ndax Sëñ Tuubaa moo tur wëlbati tuddee ko Baabul Muridiina dari dina Cheikh Ibra Fall muy buntu murit gi kep kep ku xamte ba agsi wo ci mom bokko ci murit gi wala kep ku xamte tam ba romb ko génn nga ci murit gi kon nit ñi nañ xamne rek Cheikh Ibra dal muy murit gi kep ku ko roy yaa ci biir def nga leneen lu bokk lu Cheikh Ibra def mm. ah yow nak do nexa a eh, lijeenti ci fan nga bokk ci murit gi lolou il faut ñu bàyyi ci xel bu baax xamne Cheikh Ibra mooy murit gi dem nañ ba wax ne kérok ba seigne Touba làqoo mag ñi dañoo daje ñu wax kan mo koy waxi Cheikh Ibra Fall Cheikh isa Diène wax né moy dem waxi ko Cheikh Ibra Fall Cheikh isa Diène bam démé kër Cheikh Ibra Fall daa ñëw fekk ko muy doxantu ci ëtt bi bamuy doxantu ci ëtt bi mu nuyo Cheikh Ibra tontu ko ba paré laaj ko ki yow la kan ci kum ci takum kum xam la Cheikh isa Diène ne ko ah ku baax. ba danga maa xàmmeetul Cheikh Ibra ne ko ah man de sama leeru sama ndoxu bët mu mel daa jeex na nit ku ne ci sa leeru soppe ngay ngay ngay ngay ngay xoolee te man sama leeru soppe dafa mel ni day dafa dafa fay wax nañ ne Cheikh Issa Diène jël ay jël loxoom tàllal ko ko ñu nuyante ñoom ñaar Cheikh Ibra téye loxo bi ne ko sa waaraam bi ñu ngi may tàggee sama demu sëñ bi baat looloo fi indi mu ne ko loolu moo doon samay tànk waaye Cheikh Ibra yemul foofu de ne nañ jotaay la ko Cheikh Ibra wax ne man Cheikh Ibra Fall kese maa ñàkk keneen ku doon doon ñàkkoo ndax sëriñ tubaa benn taalibe la am muy man keneen koo munti doon nga sukk jébbalu ci Serigne Touba man Cheikh Ibra maa si Serigne kon kooku moo li ko tax Serigne Touba tuddee ko Baabul Muridina teg na ko fu leer nañ ndeysaan wér na ndax suñ Fall rek da firndeel ndax tuddee ko sooroor gu nga xamante ne mu ngi fii mhm. mu nekk sooroor gu gën a gën a mag ci jumaa ji booy dugg seen ko booy dugg booy mhm. génn gis ko kon daanaka mooy buntu buntu yoon bi rek waaw daanaka kon li ñuy li ñuy ñëwaat rek maanaam mooy ginnaaw bu ki bi gërëmee da koo yabal ndar ci ci liñ ñu dégg maanaam man damay damay faral di questionner sax naan est-ce que yabal boobu nekkul sëriñ bi mu ngi doon waajal yoon wii nga xamantene ne ñu may indépendance ba tay ji maam si la ñu nekk ni muy magal gi waaw ah, yawal googu mu ko yawal ndar est-ce que do ko doon xalim lolu mom eh, liñ ci mëna wax moy di ñun ñëpp xam nañ ne Cheikh Ibra bi mu duggee ci kër gi ba changer kër gi ñëpp dégg nañ li nga xamé ne la sëñ Tuubaa wax hmm waa ne sëñ Tuubaa dafa né ah képp ka nga xamé né jang kessé la fi indiwoon sëriñ si bëri nañ ci dëkk bi mën nga dem jàngi waaye képp ka nga xamee ne dem ci suñu borom suñu muy muy muy muy muy suñu borom mooy Allahu moo la yitteel ñëwal ñu dem. wax nañ ne kër gi yëngatu woon na lool sax ba am sax ñoo xamee ne dem nañ waaye am ñoo xamee des nañ sëñ bi nekk ak ñoom. Mhm. nekk ak ñoom ba bés mu yeewi leen. comme ni nga ko waxee maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi da koo yeewi yóbbu ko ndar ndar googu nag mag ñi wax nañ ne eh, comme ni ñuy tuddee ambassadeur tey. Cheikh Ibra taxawaay boobu la fa am ndax dafa dem ndar fekk fa yeneen tarixa yi waaye mu dëkkak ñoom dëkkin ba nga xamee ne dëkkin bu rafet la dëkkin bu sel la ba ku ko gis xam ne kii kat bàyyeekoo na ci borom xam-xam bu rëy rëy rëy ndax ndar boobu xam nañ ne tey ji boo fa demee di nga fa fekk murit yu bëree bëree bëri mhm. waaye Cheikh Ibra am na ci taarix bu rëy rëy ba tax murit yi bëri fa Cheikh Ibra moomu nag sëñ Tuubaa ko yebal ndar wax nañ ne bi ko lépp la nga xamee ne ah nekkoon na ci diggante ak sëñ Touba taxawal na ko ci ndar géej googu te comme ni nga ko waxee li waral màggal gi da ciy feeñ ndax màggal gi sëñ Touba kat bi ñu ko génnee ndar lañ ko yóbbu. sëñ bi ñu ko génnee ndar lañ ko yóbbu. bi ñu ko dégg nañ li ñëpp wax. ñoom bañ dajaloowee dañu ne sëñ tubaa mii kat dañ koy faat sëñ Touba mii kat dañ koy tëj fii wala sëñ Touba mii kat dañ koy exilé ñu wax ne. buñ ko faatee def ko martyr def ko koo xam nit ñi doot ñu ko fàtteeti bu mukk ñu ko tëjee taalibe mi fi la nekk na xamoon nañ ne Cheikh Ibra dafa am doole Cheikh Ibra dafa am doole te kenn mënu koo teree sant Serigne Touba mi nga xam ne moom la gëm wër ko ba son ba nga xamee daf ko wër ba son da ko gis kenn mënu koo teree sant ndax Cheikh Ibra il faut ñu fàttali ne ci wër Serigne Touba dafa wax ne kii may wër muy Cheikh Amadou Bamba Mbacke su ma ñëwoon fekk ñu ne ma làqu na faatu na bañ bañ denc ko fii fooñ foofu ñu ko denc laay dem toog mu defal ma lim ma defal ci àdduna kon xam nañ ne gëm-gëm ko gëm mhm. kawe na lool mhm. gëm-gëm ko gën dëggu na lool it mhm. kon loolu daal lañ xamee ne il faut que nit ñi xam ko xam ne Cheikh Ibra daal liggéeykatu sëñ Tuubaa la comme ni sëñ Tuubaa nekkee liggéeykatu sallallahu taala alayhi wa sallam ndeysaan loolu leer na dëgg yàlla na maam Cheikh Rafal comme ni man jàpp naa ne xàllil la. Mm. ndax amoon na relation bu mu sekkoon ak tubaab bi ndax si loolu sax la ñuy ñëw euh, maanaam euh, dimension euh, administrative bi mu yoroon ak dimension intellectuelle bi Cheikh Ibra yoroon ba mu composé ak tubaab bi ba tey li mu buggoon ndar ndax jamono googu neewoon na ni Cheikh moo doonoon commerçant bu gënoon mag ci ndar kon daanaka loolu am na nu mu doon nu ak. manam gouverneur bek wala ñi tuba bi nekkon dar maam dimension dimension bo mu amone ak jamono go nga xamantene manam maam wax ak ak tuba ngir jëflante ak mom jafe won na trop maam dimension bo mu tollon lu ko ko mayon waaw lolu lolu mom liñ ci liñ ci mëna wax rek moy nit ñi il faut ñu comprendre que Cheikh ibrahima ak Serigne Touba mhm. seen mbir lepp ci kéemaan la tegu waaye seen mbir tamit dafa tegu ci coobare suñu borom yoo xam suñu borom moko wajal bàyyi lañu ñëw pour doxal ko nax yoon bi nga xam mo la Sëñ Tuubaa dox ba magal gi am yoon bobu xëy ci jamono joju ñu bari lu bess la won ci ñom waye ci Cheikh Amadou Bamba ak ci Cheikh Ibra Fall do woon lu bess parce que dafa bokkon ci seen émission yi ñuy dox comme ni nga waxe Cheikh Ibra dama la bi mi dem fo dafa dem comme ambassadeur waye dafa dem parce que dafa war am relation ak ñoñu pour li tay su ñëwé mu am ci taxaway bo xamé né taxaway bu mak la Cheikh Ibra nak dem taxaw taxaw doxé ko taxawé ko am ak ñëpp relation bu baax ba waral ba mbir mi egsee it mu am ci taxawaay ba nga xamee ne ah képp ko am nit yaakaar ko taxawaay bu mel noonu rek lañuy dañuy séntu ci yow. ndeysaan wér waaw moom de di dimension boobu moom damaa yëm ndax damay faral di wax sax ne suñu tuut tànk yi nga xamante ne jël nañu yoonu nasaraan gi. yaakaar naa ni bu ñu jëlee lu mel ni mu rek am na Cheikh Ibra bind na ko teg ko rek basé wu si yaakaar naa lu ñu bëgg a xam si seen àdduna rawatina si seen diine di dinañ ko xam. Mhm. ci loolu sax diine googu la ñuy digg ndax boo demee si jëzbul xurub jëzbul. Euh, jëzbul murit Cheikh Ibra mi ngi lay jàngalee julli Cheikh mi ngi la fay jàngal ni ngay wooree. Cheikh Ibra mi ngi la fay jàngal ni nga ni nga ni nga ni nga ni ngay sango janabaat lépp lu lu loo war a xam sa diine mi ngi la koy jàngal maam ñu gis ne Cheikh Ibra am na loo am na si yoo xamante ne suñ borom teggal na ko ci lu dem loolu muy mel ni julli mu mel ni woor nga xamante ne dani eh, dani woon eh, ba ba muy siñanteeg saa borom ngir ñëw liggéeyal sëriñ bi dani koy loolu moom faa nga teggil ma ko moom ba ba ba accord boobu lan lan d'accord ñoom ñaar kon daanaka loolu bëgg nañ tamit nga andi ci ay leeral yoo xamante ne murit yi xam ne Cheikh Ibra loolu ndigal la si jotoon waaw xam nga maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba dañoo ñëw ci jamono joo xam ne bi ay buur moo fi amoon waaw Mhm. waaye loolu liñ ciy wax mooy Cheikh Ibra Fall dafa bokkoon ci askan boo xam ne ay buur lañ mhm. askan boo xam ne ay buur lañ ba pare dëkkoon foofu ñuy wax Njaabi Fall waa Njaabi Fall seede nañ ne ñoom ñii di laaj impo ñii di di sonal nit ñi ci yenn euh, laaj-laaj yu bari yi daawuñu dugg seen seen dëkk boobu daawuñu fa dugg mhm. waaye keroog ba Cheikh Ibrahima Cheikh génne dëkk ba dañ faa dugg Cheikh Ibrahima Fall ba fa dellusee dañen laaj nu ngeen def ak ñooñu ñu nak ko ah ñooñu de sonal nañ ñu lañ daan def yëpp def nañ ko te terewul ñu ngi fi dugg ba légui mu leen xam leen nak lima nekkon seen biir rek moo waraloon duñ fi dugg kéro bama démé lañ am possibilité dugg ba muy dem di wëri Serigne Touba kon ñu xam ne Cheikh Ibra lim boole dafa bëri dafa bok ci askan bu baax muy askanu buur bi nga xam ne moom la ñëpp xamoon ba paré nekkon ko xamé ne dafa doon doxal diine wax nga ko legi sey euh, Cheikh ba dafa bindu téere tuddee ko jezbul murit ci jezbul murit bobu dala jangal jàngal julli di la jàngal faratay julli ak euh, sunnee julli di jang jàngal faratay jàpp ak sunnee japp di jang jàngal faratay koor ak sunnee koor ci ko xamee ne ñun liñu xam ci mom gis ñu ko muy julli gis ñu ko muy wor euh, waaye ku gëstu deeng nga ñu ne Cheikh ibrahim Fall kat bu mag ku gëstu deeng ko waye jaxasoo ak Serigne Touba nek ci liggey bu tar mo waral lol yëpp ñu teggil ko waye kan ma ko teggil borom lepp ko ko teggil ndax Serigne Touba màggal gii ba fi dem daa ne ba jéego la wax Jibril nek ko suñu borom ne suñu Jibril ne ñew ne ko suñu borom ne lo bëgg mu ne ko lepp la bëgg euh, Jibril ne ko suñu borom ne may na la lepp kon hmm. borom lepp moko ko teggil Serigne Touba mom julli ndax bureau ba ci ndar ñun ñep yëg nañ ko xam nañ la fi xew ha ah, ci bureau ba lu xew ci bureau ba Serigne Touba mo taxawal julli dëggal ko doxal ko dégg nga moom moom julli ba ba tey jii nit ñi bu ñuy julli dañ ko war a gërëm sant ko kooku nag mu am possibilité teggil nit julli teggil ko ko pare waaye da ko koo teggil bàyyi kook leneen ndax bàyyi faal ku ko xam-xam ne ci baatu laa ilaha illallah la nekk ñu wax ne euh, jëlee nañ ko ci ki mel ni soxna ki ne jiili muy wax ne euh, Cheikh Ibra da doon dox ci dëkk yàlla yi ba fekk benn néeg bu ñu tëj Cheikh Ibra ubbi néeg ba fekk fa ay malaaka yoo xam dañu doon wax laa ilaha illallah muhammadu arsaluhu illahi nee na malaaka yooyu tourné na ko sëñ bi ñu mu ne naa mu ne dañuy jébbalu ci yow Cheikh Ibra ne leen loolu mënu leen mënu ma ko nangu mu ne ko ah danañ jébbalu suñu yow ci yow ndaxte garab ba ñu suñu borom tëjee fii ba léegi ñu koy jaamu kenn mësuñoo ubbi yow yaa ñu ubbi kon dañuy jébbalu ci yow wax na ne Cheikh Ibra Fall nee na dafa dégg baat bu ko naan Ibra Fall nangul ndax man mii di sa sëriñ Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy sama sëriñ te Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam si yonentu yàlla Ibrahima mooy sëriñam kon nangulool ñooñu seen jébbalu Cheikh Ibra nangul malaaka yooyu seen jébbalu waaye mu ne daa am lu nit ñi fàtte malaaka day jaamu yàlla kese te jaamu yàlla malaaka bokk ak jaamu yàlla nit ak jaamu yàlla nit jaamu yàlla malaaka jaamu boo xamee ne yàlla da koo nangu la mu ne malaaka yooyu keroog bañ jébbaloo ci Cheikh Ibra dañ ko jébbalaale seen jaamu yàlla kooku kon il faut que nit ñi xam ne fa ñu attee julli ak woor doo fa seen ab Baay Faal bokkuñu foofu parce que loolu bokkul ci ñoom dañoom ñoom dañoo am assurance parce que dañoo am jaamu yàlla bu yàlla nangu te li ñuy wax nag Baay Faal a tax ñuy wax Baay Faal dafa am Cheikh Ibra Fall Baay Faal la woote Baay Faal gi oote nag misaal na ko wane ko waaye bàyyi ko fii wan nit ñi ne moom gëstu na xam na jàng na te téere boobu mu bind rek ku ko gis xam ne Cheikh Ibrahima Fall daa jeexal téere yi. donc kon boroom xam-xam bu wér la. ndeysaan ndeysaan maam Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan moom de kéemaan la woon ndax wàllum julli googu sax dégg nañ muy faral di wax naan adoom julli de séentu sa bàmmeel la ruqoo si julli maam séentu sa bàmmeel la fexeel nag jéem faa def. la lay dimbali ëlëk waaye da ngay gis jamono gi fiñ toll julli yombul de ndax lu tax julli yombul boo kàbbaree say solution yu bari ci kàbbar ba nga koy fas di di xool noo koy raisonné boo paree bu dee maanaam eh, waa defes war nañoo tourner ji fenn ci julli gi ci biir julli gi la ñuy xalaatee fan la ñuy ji mm-hmm. nga xamante ne julli fi toll moom yombul waaw ndax <laughs> ndax julli moo nekk lu doy waar mm-hmm. kon Cheikh loolu mu ne julli ruqoo ci julli mooy séen sa bàmmeel fexeel jëm faa def dara balaa balaa balaa leneen di la ci fekk. dëgg waaw lu mel noonu sax dañ ko dégg ci mag ñi. Eh. ñu koy nettali ñu wax ne am na ku mus a gane si Serigne Touba waaye dem ba ci biir mu ne Cheikh mu ne Serigne Touba ji nekk ak yow. Mm-hmm. daa war a julli. dëgg ndax yow ak ni nga baaxee jëmm ji nekk yow ne du julli. Eh. daa war a julli. nee nañ waxtu julli ba mu jotee Serigne Touba ne Cheikh Ibra duggal ci sàppa yi nga julli <laughs> wax mag moomu yow jiital julli bi Cheikh Ibra dugg ci sàppa yi mu kàbbar ba tàmbali julli bi Cheikh Ibra génn génn génn sàppa yi mu sëlmal daal ne Serigne lii laa lay wax gis nga sa waa ji li defati Serigne Touba ne Cheikh Ibra lu waral nga def loolu mu ne ko ba mu kàbbaree de xelam daa dem ci <laughs> ziar bu mu la waroon a ziar mu waajaloon ko pare fàtte ko këram kon xelam génn ci julli bi. mu ne ko waaye nag jëli naa ziar boobu indi ko ko. loolu moo waraloon ma génn ci julli yi kon kooku du ko ndaw ku mag la. kooku fa mu féete moo sori. Cheikh Ibra du ko ndaw il faut ñu xam ne Cheikh Ibra rek daa doy kéemaan. Mhm. Cheikh Ibra Fall. Mhm. moom kot daa doy kéemaan. loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg te nekk fi ñëpp di ko dégg ñëpp di ko xam. Ah, moom de xam naa ni li ñuy wax rek. dañoo nekk ci wàllu mbir moo xamante ne mbirum temps la. Mhm. waaye xam naa ñu profité ak waxtu bi rek ndax li ñaari laaj rek la ñuy laaj benn bi xam naa ni moo koy tëj. Mhm. waaye bi ci njëkk mooy Cheikh Ibra nu mu defoon ak màggal gi. màggalu Tuubaa gi waaw. waaw màggal gi nag xam naa ne daal eh, cosaanu màggal ni mu demee. Mhm. ci cosaan wax nañ ne màggal gu njëkk gi Serigne Touba. dafa oote màggal gi ñu may ko ab bëy ñu ko joxee ab bëy mu jël bëy boobu jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall pour mu changel ko ko am xaaf lañ wax am xaaf nag boo ko déggee mooy am xar góor mu jël xar ma yóbbu ko ci sàmm yi mu jël bëy ba bokk yóbbu ko ci sàmm yi li mu ko yóbboo ci sàmm yi mag ñu wax ne daane tëll ci biir sàmm yi nga bëgg jël bëy changé ko ab xar mu góor xam nga loolu yombut waaye nee nañ ba mu ne tëll saamu yi dañ doon njëkkante béy bi ndax nee nañ béy bi daa am ñaari mbir yu mboole dafa jóor ak joox ñu ne béy ba juróom ta juróom du jur mukk benn juróom ci ñaar la tàmbalee waaye soo ma yet da ratt ba sonn rek bàyyi waaye du jeex sàmm yi biñ gisee béy bi lañ xam lañ xam loolu ñëw ci moom ne ko demal ci ci xar yu góor yi nga tànn ci bi nga bëgg kon kooku Euh, bokkam ci màggal gi leer na nañ bokkam ci màggal gi uh-huh. leer na nañ ndax màggal gu njëkk ci ña ko taxawal la bokk dëgg la <laughs> donc Cheikh moom euh, nañ xam ne lu Serigne Touba mos moo ci jiitu moo ci jiitu te Serigne santaane màggal bi euh, jamono ji ñu ne gis nañ ne ñun taalibe yëpp dañuy jël suñu koom ak suñu kàttan di ko def ci màggal bi waaye loolu wax naa ko ci début ba ta ñëpp ay taalibe Cheikh Ibrahima la kon loolu mën nañ japp ne ñepp rek ci mam Cheikh ibrahim Fall lañ ko royé ndax da doon jël koomam jël katanam lepp ngir nga magal gi jak Cheikh ibrahim dal mo yoonu murid mo mo taxawal yoonu murid def lepp bañ wax ne kep ku bëgg xol sa murid fu mu tollu xol li nga roy ci mam Cheikh ibrahim Fall kep loo li nga roy ci mam Cheikh ibrahim Fall rek fofu la sa murid yam ndeysaan waaw loolu de mooy mooy am solo moom ndax euh, li nga wax rek màggal gi bu jub see moom daanaka sama genre yi moom ñëpp ay baafaal la ñuy doon. dañuy nekk ci mbedd yi di séddale café di waajal safari. Mhm. kon ñun ñëpp ay baafaal la ñuy doon. kon daanaka sama genre yooyu moom xam naa ni mu mel ni man moom bari nañ ci dëkk bi waaye réeree nañ Cheikh Ibra mhm, bu baax waaw bëri nañ ci dëkk bi réeree nañ Cheikh Ibra ñu ngi wootee woo Cheikh Ibra nag dëgg la waaye réeree nañ ko bu baax xam naa ni ci loolu la ñuy tëjee rek nga nga nga am loo leen baaxee mhm. ci li si Ibra woote woon wax leen ni lii ñu nekk du Cheikh Ibra loolu la woote woon li ñuy li ñuy njëkk ñëw ci loolu mhm. mooy ñëpp xam nañ ne Serigne Touba daa waxoon ne loo mën a gis Ibra Fall raw na loo mën a dégg Ibra Fall raw na loolu moom li muy tekki daa yomb mooy Cheikh Ibra Fall raw na kenn doot ko dabati ba faw mm-hmm. waaye Cheikh Ibra Fall moom dafa waxoon ne kay wax ne Serigne Touba amul morom ña koy dégg buñ tourné gees geesu la mm-hmm. dañoo war fekk yow nga nekk koo xamee ne amoo morom am Cheikh Ibra lu mu bëgg a wan mm-hmm. Cheikh Ibra Fall moo njëkk wax Serigne Touba amul morom waaye moom ba mu koy wax amul morom Cheikh Ibra ba muy wax ne Serigne Touba amul morom Cheikh ibrahim Fall amul morom amul fik jàng di doxal bi mu ngi ko war a doxalee topp sëriñam ba pare mun am am am possibilité nak taxaw ne Serigne Touba amul morom wa Cheikh Ibra daf ñoo oop ñu fekk ci ko ci lool mu kep ka nga xamé ya nga wax Serigne Touba amul morom nit ñi buñ né gees xol la kenn warta wax parce que yow da nga war nek ko xamné amul morom kon lool mu ñi o dañu soñ ci doxine bu juk ci yoonu siratal mustaqim Cheikh ibrahim foofu lañu wo Cheikh ibrahim dafa wax né dafa am gan gu ñew kërëm daal di ko wax ne sa ak julli gi nga nekké man la bëgg lijjanti mu ne ko no koy lijjante mu ne ko deet da nga war di julli Cheikh ibrahim Fall ne ko heure ma mat imam ma julli mak ma ne ko lol yomb nam mak ma dem wóori ci dëkk bi ba gis kenn mom ci ay xam xam mu xol gis ne ki mat mat na mat na mat na Cheikh ibrahim Fall serigne mu indi ko daal di wëlbeutiku demat wër wër wër wër indiwaat keneen mu def ko ba muy ñeenti nit mu ne ko li la waxoon am na de mu ne ko la ma waxoon mu ne ko am naa ñeent ñoo xamee ne càmbar naa leen xool naa leen xam ne mat nañ la imaam xeebare na ko waaye li ma la wax it man am na de mu ne ko nu mu amee mu ne ko da indi sama taaw indi ki topp ci moom indi ki toppaat ci moom indi ki toppaat ci moom mu ne ko ñeent ñi nga indi fii ñëpp ne mat nañ ma imaam samay doom lañ kon la ma nekk ba mën a jur ñoo xam ne mat nañ imaam kon bale baleen ma ci loolu <laughs> Cheikh Ibra Serigne Touba ko waajal defar ko pare ko toxfatu mox ta dari yi naa bii nga doon tari keroog dégg naa keroog ba ko Serigne Touba bindee say Cheikh Ibra Fall doon sax di wax naan ku baax tooñ na ma ndax nit di dox nga jël nga ngay tibb ci jëmam di bind toxfatu mox ta dari yi naa boobu noonu dañoo wax ne loolu jëmm Cheikh Ibra la mm-hmm. awaay ah, toxfatu na fu mu nekk jëmm Cheikh Ibra ay nit ñi war a xam ne Cheikh Ibra amul morom loolu moom daa leer waaw amul morom de. maam Cheikh de kenn la comme ni ko waxee noonu rek imaam yooyu muy ay leeram kon ndaw ñi nga xamante ne sama genre yi nga xamante ne ñu ngi woote woo Baye Fall te ump nañu Baye Fall. <laughs> bu baax yaakaar naa ne buñ toppee njaboot Cheikh Ibra gi ñu mel ni sëñ Modou am Cheikh Cheikh Cheikh Modou euh, mm-hmm, Menda Fall mi nga xamante ne moo fi nekkal maam Cheikh mm-hmm. yaakaar naa duñ juum dëgg la maam Cheikh jëmm Fall yàlla na saa borom yokki leeram amiin te barkeem fee mu tëdd te tas ñu si barkeem dëgg yàlla njàngal jàngale na Cheikh nu ne jàngale na Cheikh Ibra nu ne te dëgg yàlla ay jëfam ay kàddoom ak nangom gi mu nangalon eh, seigne Muntaxa yaakaar naa buñ ko toppee dinañu doon Baay Faal gi ñi wur ndax Baay fim fi mu toll dafa raaf moom façon Baay Faal bu ne dañ ko gis ay ñi ngi ñaan ci barké maam Cheikh Fall yalla na nangul yàlla nañu nangul suñu Baay Faal amin ndax yombut amin xam naa dañ lay jox kaddu go xam kaddu gu mujj rek nga taggo bu ko defee ma ñew ci li mel li nga wax nonu ndax yi warañ ràññee gi nag ah njabootu Cheikh Ibrahima ñu ngi fi mm-hmm. waaye njabootu Cheikh Ibrahima ñun gis na ni ñuy doxee mm-hmm. kon képp ku ne Baye Fall laa da ngay xool ci ñooñu nga def leen royukaay mm. Cheikh Abdou Karim Mbacke ah géejawaay liggéey ba mu fa liggéey ñëpp teg nañ ko bët fekk ay nit ñi nga xamee ne ñëpp amatuñu woon ñoom yaakaar nga jël leen defaraat leen bañ ci nit ñi ci nit ñi kon kooku mu ngi liggéey bu baax Cheikh Abdou Karim jël kër tabax ko defar ko ba mu rafet may ko magam alaaji baara kon Baye Fall mu ñuy won ne kilifteef dafa baax Cheikh Abdou Karim Mbacke bu alaaji baare ne tëll mu ci suuf loolu boo demee seen kër am na sëriñ sëriñ naa mii tey ay magam bu ñu ne wàcc na ci suuf donc Baye Fall yar ak teggin cee ànd Baye Fall yar ak teggin da cee and te ñu ñep deg nañ ci Cheikh Cheikh Cheikh Mokhtar mu wax ne nañ am yar te am teggin nak ku amul yar do yor dara te ku amul teggin tamit do teggi dara waaye yar ak teggin nak moy li nga xamé ne mo teunk Baye Fall. ñaari état ñaari ñaari ñaari Baye Fall ba nekk way nak yoonu murid ñu ñep xamné dañu baxo suñu dugg suñu kër yi wala ci jumaa yi demee non dañuy simi suñu dal waye ñaari Baye Fall ya way bo fay dugg ak ko mu doon wu ñu lay wax simil say dal wu ñu la koy wax so xolé suuf ci ni mel rek xamne ah jotna na ma simi samay dal fofu baye falé fa ne mhm. ah deug deug ñom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi roy cheikh ibrahima bu baaxa ba mhm. di liggey di jaamu yalla fo len fekk ñu ngi sikar mhm. yenn ki yi baye fall yu bes yi ñi am bokku ñu ci ay baye fall yi nga xamé na lañ am cheikh ibrahima fall lañ gëm di geustu dundam di ko roy képp nag kuy oote woon it lépp solo ci yow mooy dangay ngay gëstu dundam te di ko Faal dëgg fu fekk ab murit bu jébalu ci ku sant Mbàkke dalay jàppee sëriñ ndax ni Cheikh Ibra jàppee woon sëriñ Touba sëriñ Cheikh Ibra daa jàppee sëriñ Touba sëriñ ay doomu sëriñ Touba fekk ko fi mu jàppee leen sëriñ kon yoonu Baay Faal wane ne ne yar ak teggit moo ci am Cheikh Ibra wane na ko tënk yoonu murid ki tënk yoonu murid muntu a tënk beneen yoon di jum, hmm. Cheikh Ibrahima mo tënk yoonu murid kon murit ni ñu war a doxee ku kooku yoon bam am ñu koy wax Baye Fall nga xam ne ci murit gi la bokk tamit du juum te am fa. kep ku def lenen nag ya ko defal sa bopp. ku def lenen ya ko defal sa bopp hmm. waaye kep ka nga xamee ne tënk nga ci li Cheikh Ibrahima wax. Hmm. raw nga comme ni ko tu Tuubaa waxee lo loo a dig, ibra Fall raw na loo a gis ibra Fall raw na ñu ngi leen di sant bu baax di ñaanal gudd eh, yaram di nyana ñaanal di ñaan aussi seen euh, télé bii nga xam ne mooy la Dépêche TV mu yokk ba ñu koy dégg fépp ci àdduna bi. jërëjëf ñu ngi leen di baax a baax. jërëjëf Diorine wax yàlla am nañu mbégte dalal la fii ci eh, lii ñuy def ci màggal gi ndax liggéeyal Serigne Touba rek lañ ci lañ lañ lañ ci jublu di ñu ñaan nag eh, Serigne Serigne Touba mi ñuy liggéeyal liggéey bi yàlla nañ defal tawféex ñu bokk ko àndee ko ñun ñëpp. di ko ñaanal bu baax waa daara ji xam naa ni buñ ci buñ la ci jiitalee rek yóbbaale nañ ñëpp. waaye ñu ngi siyaar baax ñoom sëñ Yaxam ñoom sëñ Baara nga xamante ne ay wëllëre leen. leen ñaanal baax. yàlla na saa borom gën leen a taxaw ci daara ji. ñi ngi am mbégte lool ci mbooloo mi. ndax dañoo jàpp ne sax si lañ bokk. ndax yàgg nañ àndee lu ne. Mhm. waaye lii da cee rawati. kon ñu ngi leen di bàyyeeg sëriñ bi. yàlla na leen sëriñ bi maam li ñuy li ñuy li li sëñ Cheikh Mbacke tënkoon ci daayira ñan ko ci yàlla ngeen dajeeg moom. ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall. ñu ngi sant bu baax mbokki taalibe yi doon suivre émission bi nga xamante ne ñu ngi koy amalee fii ci Touba saay su ne. di santaat bu baax a baax sëriñ Muntaxa di ko ñaanalaat suñ borom gën koo yàggal ndax suñ Muntaxa bu fi yàggee wax dëgg yàlla yaa am nañu njort ne àdduna sax. dana dana romb fii yëpp. la kon yàlla na fi gën a yàgg te wér. di ko ñaanal sëñ Modou Menda Fall. moom mi nga xamante ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall. yàlla na ko saa borom yàggal lool mu ànd ak wér. di sant bu baax équipe bii nga xamante ne ñoo nekk ndax dama ne saa su ne ma koy wax am na si ñoo xam dama leen koy wax nee naa ñun li ñuy def nii moo gën a sedd. Mhm. ci li xew ci télé. dëgg la ñun li ñuy def toog di wax moo gën a sedd. waaye ñi nekk ci ginnaaw de wala dëgg yàlla liggéey bu ñuy liggéey moo ëpp solo. ndax amaana cadrage yi ñuy def montage yi maam nekk ci di ci di ci fanaan suba ngoon guddeeg bëccëg looloo gën a métti ñun lii ñuy def. ñu ngi leen di ñaanal lépp luñ bëgg ci télé bi ñu ànd kook ñoom suñ borom defal ñu ko. ñu am si ngërëm. am si eh, tawféex am si lu kawe suñ njort ci barkeb Serigne Saliou ñoo ngi koy ñaan Serigne Saliou yàlla na ko Serigne Saliou def defar seeni mbir maam ba du ñu ñee kenn ci àdduna ci barke alquran kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey wax eh, seen mbokku taalibe la Baye Mamour Fall doxal lii nga xamante ne ndigal rek la si jot ak liggéeyal Serigne Touba loolu yàlla nañ ci daje dajeeg ngërëmam ci barkeb Serigne Saliou kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf